bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilah alsalaatu wassalaamu ala sayidi almursalin wa alihi wa asxaabi ajmain mbokki jullit yi mbokki taalibe yi audio bii ñuy def euh, ñu ngi koy def ci euh, vidéo bi nga xam ne jógee na Cameroun ci football yi wala ñenn ci football yi waaye ñëw na Gambia beneen audio wàlli ci muy audio oustaz Thiébo Thiam mu nekk loo xam ne laaj na gën a jàngale waaye laaj na gën a yaatal maa ngi waxtaan ak di waxtaan ak oustaz Thiébo ak ñi ni moom di waxtaan ak sama bopp di leen fàttali ne alquran wax na ne wa isa maro bi laxwi maro kiraama soo rombee laxu mooy ay caaxaan rombal wéy bul gestoo borom nataal bi ciiba caam di tudd te xale yi tudd ko ci football ba mooy Cheikh Ibrahim Niass moom la bëgg leeral mooy kan xawuma ko waaye xam naa ci tuuti may wax ci ba ci am ne euh, gis nga borom nataal boobu mooy Cheikh Ibrahim niti sunna la amut ku ma xam man ci kaw suuf ci ñi jiitu woon ak ñi fi nekk tey ku ko gën a topp sunna man xawma ko ci waxam ak ci jëfam ak ci mbooloo mi ko topp moom dégg naa mu wax gis naa mu bind ne isa zaara xayru naasi surtout waraahu wa in halla yowman fal masiru baid doxab yonentu yàlla muhammad bi ci ànd ak yàlla dox bi du taxaw bàyyi ne maa ngi ca gannaaw yonentu yàlla muhammad jéego bu mu séqi ma teg duma ko duma ko mooy mukk lim jëlee ci yàlla moom Cheikh Ibrahim wax na ne wasaana ilahi nafsi dahara laa ura amilu ila ma laysa fi sarxi jaisa wasaana ilahi nafsi yàlla moo ñoŋeel sama bakkan bi moo ko defar sama bakkan bi bakkan bi war a nit ki amaaratu bisoo bakkan boobu nafsu amaaratu bisso bi war a yóbbu ñi ci problème yi yàlla defaral na ma ko téyel ma ko ñoŋeel ma ko ba nga xam ne diitub jamono daharu la jëfandikoo xam nga ne dëxëru ci arab moo gën a yàgg diirub jamono may dund laa ura amilu ila ma laysa fi sarxi jaayisa kenn du gis ma jeng jëm ci lu jëlal wax boobu yow ceebo caam teg na ca ne bi yumni rasulillahi hibbi wa mursidi bi sardi lahu amdaaha qad sirtu faisa ànd gi ma ànd ak yontu yàlla muhammadu mii sama soppe nga xam ne man moo may jubbanti man Ibrahima Niass di ma teg ki yoon ma koy tagg-tagg yoo xam ne dama ko xereñee di ko teg ci yoon ci laa kowee ci laa texee ci laa passé suma exam suma ko toppoon wax yu bëri na lool yuy tegtale ne moom yontu yàlla moomal la bëgg moom la topp te doy na ci mooy ca borom xam-xami Saudiya bëri na ñu ko ci loon boroom xam-xami Maroc boroom xam-xami Égypte ba jox ko mu jiite jumaa joo xam ne xamaguñ africain bu ñuul bu ko jiite bu dul Cheikh Ibrahim kon kooku ngay wax naan lañ nekk këram sax jamono ji xamut ko wax la joo xam ne dafa mel ni dëgg dëgg la d'accord nañ ko waaye sànni xeer nga ci jublu waaye maa ngi xamal na gis nga yoonu Cheikh Ibrahim wi yoonu sunna la te jamono bu ne dafay gën di yokk nag mbooloo mi dafay gën di yokk ay ustaas yoo xam ne ñoo leen man ci làkk arab ñoo leen man ci dégg arab ñoo leen man ci jàng alquran ak dégg alquran dëkk Soudan dëkk Égypte dëkk dëkk dëkk dëkk Maroc fu nekk ci adduna bi ñooñu ñoo ànd ak Cheikh Ibrahim nangul ko kon xam nga kenn ku mel ni yéen bu taxawee fële dégg eh, dégg laxwu ñooñ laxwu ñooñ laxwu wax rek nga sukkandiku ñu ne xaaral ma coppati Cheikh Ibrahim wala ma coppati ñu ànd ak Cheikh Ibrahim ñun loolu du ñu yëngal ndax ku ne xam na ne dooree woon naa ci wa isa maro bi lax wi maro kiraaman ndax làmb ji ñuy yëkkati nataali Baay wala nataali Sëñ Tuuba ndax làmb jooju buñ ko seetoon balaa ñoo egg ci yëkkati nataal ñu wax ne nañ ko tëral ci sariyaatu football bi dajale góor ñi jigéen ñi fu nekk ñi jógee jaxasoo su fekkoon ne delloo nañ ko ci sëriñatu ndax konoon duñ wax xale yi ne toog leen hmm? kon laxu bi moom ngay njëkk a balaa nga àtte ñooñ laxu bi lu ñu wax ñiy def laxu mooy fo po moo xam ne laxu wala po moo xam ne ku nekk xam na ne ku sariatu ñor dëgg la léeg-léeg nga bëgg sa sax toog di ko seetaan waaye xam nga ne buñ delloo ci sariatu laxu wala ñooñ laxu buñ dajee di wax man dañuy dañuy continuer di wax laxu rek su boobaa jëlal wax ja ñu wax jàpp ko ne laxu la du wut damay dëgëral li ñu wax ne bàyyee seen secret joxeñ nataal bi dëgëralu ma loolu ndax hasbuna allahu wa ni'mal wakiilu fa ko saxaaba yi jëlee woon ca xaree ba foofa nga ko jëlee foofa la ko ñeneen jëlee fa la ko bàyyi ñees jëlee yàlla moo ñu doy te moom lañ yaakaar waaye nag ñi nga xam ne dañu am soppe cofeel ci baay dem foofa di def laxu ci seen biir laxu yooyu ñu tudd ca baay loolu jarul futteeku mel ni dafa am nit ñu dee dafa am ko ñu rey fii ci Gambie ñi nekk ñaata nit ngay dégg ay junni junni nit barke rasulillahi bu soobee rasulillahi bu neexee yàlla yonentu yàlla Muhammad doo koy dégg yow ceebu caam loolu delloo ko ci sariya ndax dagan na loolu mu ngi feet dell ci sa bët hmm? waaye nit nag bu la rawee lool te yow nga bëgg a feeñ su juumee wala ay nitam juum rek dangay ngay gaaw njëkkalante occasion pour dal ci kawam man noonu rek laa déggee wax ji waaye Cheikh Ibrahim dem na de mu ngi ci biir sunna te sori na de gis nga Cameroun googu ñuy defee mbir mi ay doomi Cameroun yoo xam ne xamuñ fu senegal fiite ñu ngee support Gambia di support euh, Sénégal ndax lan Cheikh Ibrahim te xoowul leen ci po yàlla la leen jox waaye xam nga ne nit ñi léeg-léeg yàlla ji dañ ciy jaxase po yoo xam nga ci dara ndax yow moomu lu lu la seetaan loo mbir mi bu fekkee football yéemu yitteelul la sax xëy na am na sa taalibe boo yar buy football yitteel ba mu itteel la audi bi waaye li ma bëgg a wax mooy xale yi ci laxwu lañ nekk balaa ñu egg ci seen nataal bi nañ njëkk a seet ñoom luñ fa uti nga peese ko sariya ba xam ndax da ko nangu wala doo ko nangu su fekkee dàq nga ko ci sariyaatu ku nekk ci lu naqadi sariyaatu loo ciy gestooti ba mu jaral la mu mel ni dafa rey te yaa ngi dëkk ak ñoo xam ne bis bu ne Sénégal bi yaa ngi fees dell ci ay nit ñoo xam ne dañuy jaay seen bopp góor ak jigéen nit ñaa ngi ci marché yi di dóor marto di naxante di nangu alali jàmbur yi suñu opposition yaa ngi nii di xeex guddeeg bëccëg di wax luñ gëmut di wax niñ ñi lu doxut amut dégg nga demet demet ba ci ñu naan bur soobee rasulillahi muy wax joo xam ne dama jàpp ne képp ku ko bëggoon a defeer foofu ngay déparé waaye tëb rek dem ci football ba pour lan bëgg feeñ sëriñ bii ngay wax muy Cheikh Ibrahima wax na ne hubbu suhuur yi yam na ko suhuur ku bëgg feeñ daf lay tax a nëbbu doo gisoon nañ fi ñu la jiitu woon di ootewu sunna di tërërëra di dem rek waaye anañu tey doo dox ba dégg seen kaset ci mbedd mi gis nga yàlla bu ne kii sama waay la ba ne nit ñi topp leen ko soo yee boo yéen nga nangu rek bu yàlla rëddee nga far ko bëgg koo far daf lay far mu rëdd ba xam ndax danga ko bëggatee far wala déet kenn du dimbale caaxaan Cheikh Ibrahim moo leen ëpp jumaa Cheikh Ibrahima moo leen ëpp mbooloo muy julli ci jumaa Cheikh Ibrahima moo leen ëpp mbooloo muy julli ci yonent yàlla Muhammad Cheikh Ibrahima moo leen ëpp mbooloo mu bëgg yonent yàlla Muhammad Cheikh Ibrahima moo leen raw ci boor bu ne da ngeen dund ba dee yéen ak ñi ngeen yaakaar du ngeen jot Cheikh Ibrahima kon ba leen Cheikh Ibrahima su ngeen mënta wax baax baaxi Cheikh Ibrahima bàyyi leen Cheikh Ibrahima waaye football yu nekk ci ay laxu seen jubaleet kuy jubaleet te nekk ci laxu lu nekk nga koy jubaleetee waaye mu mel ni dafa am ku ci dëkk bi dafa am xaay waxam musiba waxam génn fireeku naan Cheikh Ibrahim ah, eh, eh, eh, gis nga borom nataal boobu au lieu que nga tudd ko tudd ko waay sa sëriñ la moo la raw te la jiitu ñu mbir mi gis nga nataal boobu la nekk këram sax xamut ko kan la kan moo la wax kan ban jàngalekat kuy wax ci dëgg ku nekk ci dëgg ku la wax ne bàyyi xam na li nekk këram hmm? wala ñu nekk ca laxwu noonu nga xam ne seen jëf ja laxwu la lañ am bay bay wax laxwu la ñooña ngay nekk di jëflanteet nga ne xaaral ma dal ci seen ko am na occasion pour ma coppati waa kër Cheikh Ibrahima pour ma coppati leen xaaral ma jaar fii nii jarut ko wax day rafet xale yi ne ci mbedd mi di football ne ci mbedd mi di làmb di di di bëree nekk ci mbedd mi di jubaleet ñooñu seen yëf yëpp laxwu la su leen neexee ñu naan barke diw sàngam barke baay diw nangam nangam diwa def lii loolu yëpp bu fekkee nit ki da ko bëgg a defar demal nga jàngale ji demal nga ootee nit ñi nga jàngal leen déparé ko sa biir kër déparé ko ci say dëkkandoor waaye lii ñu wax nii fañ ko waxee jubaleet la ñenn ñi sax buñ demee ba sawar daanaka duñ ànd seen sago man jàpp ma ne man jàpp ma ne groupe bi yëpp taalibe bàyyi lañ jàpp ma loolu jàpp ne ñàkku dafa am ku fa ku fa oote wa taalibe kenn wala ñaar man xamuma leen sax waaye loolu laa jàpp léegi kon kooku sa waxee loolu jàppee ko ci loxo yi rek waaye xam nga ne moom kenn kay deful loolu ba naan lii suñ secret waaye da nga gis ne ndeysaan rek euh, mu ngi noonu li ma doon wax rek nit daal waxtu wu nekkee ci sa gannaaw mooy xam sa doxin num ñaawee waaye ki ci sa kanam moom mënu koo xam ndax moom du gestoo dem leen a góorgóorlu ngeen rafetal xoote bi gis nga bëgg feeñ dafay tax nit ki di nëbbu bëgg a feeñ dafay tax nit ki di nëbbu asadu hayba bëgg njiit moo gën a bon ci sikk yi te tey bëri na sax koo xam ne dana génn ne waaw Thiéba Thiam kay wax na dëgg parce que gars yi waruñoo wax ne kii ba bàyyee seen seen nangam nangam yàlla moo ñu war a doy yow moom da wax sa biir kër sa njaboot gaa nge wax barke rasulillahi barke sëriñ diw sàngam sa sa njaboot gi yow ñi ngay wax lool lu gën a garaaw loolu ñi nga xam ne demuñ football yi ñu ngi koy wax te da ko waxee sax ci loo xam ne du football xam nga ñu ñoom ci laxwu lañ ne ñu ngi koy waxee ci biir laxwu manoon ngaa boole yëpp sànni ci àll ba nërmal ko ci àll ba ne loolu laxwu la nga dem doxi soxla yi déedéet waaye am na ñu koy wax ci biir kër gi ci biir dëkk bi dégg nga loo xam ne laxwu la ay waxi caaxaan la yoo xam ne mu ngi ci sa nopp bi fees dell waaye bii boo gisee ci am génn lim ci namm yëpp mooy la ma la wax rek mooy xaaral ma jaar ci gaaw ma coppati waa kër baay ndax bëri nañ ci dëkk bi fu ma maa ngi leen di gis ñi ngi en kurus yi sol seen mbaxana yi naan bàyyi yàlla di man daal ñi Cheikh Ibrahim sunni kese bu yàggut xale yi doon jàng alquran senegal ki ko jël xale bu ndaw la haadi la tudd waa waa Medina Baye la ñu ñu ñu farata farataalul alquran téere bi yàlla bi ñu ko farataalul mën nañu am loolu mokka alquran ba di ko jël ci fu ñu koy jàngee ci biir senegal ak Sénégal ni mu bëree daara ndax yaakaar nga ne loolu ñuy ci ay caaxaankat danañ ko am xale boobu bi ko ko yóbbu bitim réew moo fa moo moo moo moo dee jëlaat njàngama hmm? doomi Medina Baye ak taalibe Medina Baye nekk fii imaam Barham Diop du doon taalibe Baye doomam ji Moodu ñaata yoon la génn dem bitim réew ci biit tubaab yi ci biir araab yi laay wax subhanallah ci biir araab yi di jël njàngam alquran wala mu jël taat wala mu jël mu jël fa foot ñuy caaxaane alquran danañ def loolu kon yoon wi sikkut ku ko bëgg sikkal yow yaa sikk ñaye laxwu nag nekk ci ay caaxaan lu leen neexee ñu tudd Baye bu leen neexee ñu tudd sëñ Tuubaa bu leen neexee ñu tudd keneen parce que ñooñu dañoo liggéeyal yàlla xaruna bi topp ci seen gannaaw ku liggéeyal yàlla xaruna bi topp ci seen gannaaw nag ñaata nit ñoo lay topp yonentu yàlla Muhammad ñi ko topp toppoon ñi ko woon ñaata nit ci ñoo xam ne àndoon nañu ti yàlla Muhammadu léeg-léeg ñu wax dara ti yàlla Muhammad jubbanti leen ne leen du noonu kon nag kàddu dëgg la goo xam ne génn na muy audio muy vidéo ceeba caam bi waaye ma xamal nit ñi lim ci jublu yëpp mooy sànni xeer ak xaaral ma xokkati tuuti ma coppati tuuti ñii nga xam ne seen yaatuwaay beeg seen bëriwaay gi daf ma jaaxal ci adduna bi waaye wallaahi bëgg a feeñ dafay tax a nëbbu jaru ko jaru ko ñii ci ay laxwu lañ nekk suñuy jubuleet lu nekk la wax suñ génnee ci seen jubuleet ba ba ñib si buñ ñëwee soo leen bëgg a yar xoo leen nga waxal leen oo leen nga waxal leen su fekkee am na ci kenn koo mën a jot te nga xam ne boo leen di waxal njëkk leen a baloo football balaa nga leen a wax baleen lii njëkk leen a baloo football njëkk wax dafay doore ci foundation bi waaye du tëb rek dem ci njubal garab ga du loolu li tax nag ma koy wax mooy ñun xam guñ xam li tax nga sa wax ji jog loolu moo tax duwul ne dañoo dañoo dëggal la xale yi wax déedéet waaw tawhid xam nañ ko bi bi ñoo jàng ci téere yi xam nañ ko bi nga ànd nit ki ba mu rof ci sa xol bi am nañ ko moom tawhid boobu borom bi rek lañ jàpp ne mooy borom yonent yàlla Muhammad mooy njiit mooy suñu royukaay bàyyi sax buñ ko bëgg wala ñu ànd moom lim roy yonent yàlla Muhammadu la waaye su doon loolu duñ ko bëgg duñ ànd ak moom kon tawhid bi ngay oote ñun xam nañ ko waaye xale yi ngay sànni xeer di dal ci seen kaw nga mel ni ku leen di jàngal soxla wala xale yi yoon wi nga soxla bu ñeboo itam ñi jéem a lu ci rafetal suñuy kàddu waaw nañ rafetal suñuy kàddu nañ góorgóorlu ñu rafetal oote bi oote bi nañ ko rafetal am na solo trop pour ñu rafetal oote bi kenn ku nekk da nga xam sa doole waaye xamula foon ngay mujj waaye yoon wi comme bëri na nit ba bëri na nit dëgg dëgg léeg-léeg nga dégg ci kàddu goo xam ne dana jóg da nga xam ne kon kàddu gi de euh, euh, mënoon nañ koo waxee neneen waaye fekk kàddu googu noonu mu nga génn ci ñoo xam ne ay laxu la ñuy def ay fo sëñ bi mu mel ni dëkk bi xëdun na bi dafa bëgg a tukki dégg nga te yow yaa bis bu ne every day lu xale yi wax noonu ca football ba yaa ngi koy dégg fii nii ci sa bët yi wax waxoo ci dara génne woo ci vidéo loolu kay man moo ma si jaaxal man hmm? mu mel ni xale yi naa yónni audio bi suñ ko dégloo dana am ñoo xam dinañ discourage ci bàyyi kenn du ci discourage mbëggeelu Cheikh Ibrahim ci xol bi lay nekk te bàyyi li tax nit ñi ko bëgg yàlla la kenn bëgg ko ko koppar ku bëgg ko par xam nga foo koy utee ji kenn bëggewul ko alali aduna yàlla ji muy jox nit ñi ak tawhid bi muy jox nit ñi moo tax kon nag euh, il faut ñi xàmmee laxwu muy caaxaan yi la xew ci mbedd mi ak ñi xàmmee fan la dëgg nekk hmm? lii laa bëggoon a wax di ko wax euh, euh, oustaz Thiéba Thiam ak képp koo xam ne yaa ngi moom a bokk xaqida ci loolu ñun ànd nañoo yéen ci kaw wax ne maanaam amul doom aadama buy joxoñ nit naan lii mooy sama sirru mooy sama secret loolu ànduñ ci loolu ñun ànduñ ci waaye boo gisee may tontu dama xam ne oustaz Thiba Thiam kàddum gi dafa gis lu lu gën a jara wax loolu jege ko lool waxut ko waaye sànni xeer bokki taalibe yi sànni xeer yoon woowu moo ko tax di wax. loolu moo tax ma koy jox audio bi mu xam ne euh, ay oustaz la fi leeroon yu jàng comme moom lim jàng xam nañ lim xam bàyyi ñes mënoo koo jëm ci benn boor. taalibe bàyyi ak doomam yi ak nit ñu baax ñi sës ñi ko sës manoo leen a jëm ci benn boor ay xale yu nekk ci àll ba di fo nga romb leen naan jaral na ma génne audio firee ko mel ni koo xam ne dafa am ko ñu rey ci dëkk bi te yow li nga aaye wala li la jaral génne audio mu ngi fees dell ci biir yow ki ànd ak yow sax na la yow yaa wax dëgg yow ceebu am suñ delloo ci këram léegi dégg mu ngay wax loo xam ne moo gën a garaw li xale yi di wax hmm? lii rek lañ amoon pour leeral fa jazakumullahu xanaa kulla xayrin yal na yàlla boole defal ñu dégg yàlla may ñu taqwallah yan nañu yàlla may tawhid may ñu taqawalla yan nañu yàlla musal ci yàqu ak yàqule ak hiñaan yan nañu yàlla musal ci xol bu xat yan na yàlla yaatal suñ xol bu mel ni xol yi ti yàlla Muhammad ñi nga xam ne dañoo nekk ci ay lu doxul noonu sax danga nga fexe nooy naxanteeg ñoom ba ooleen ñi ñëw nga defar leen ci witaawut euh, ñi ma ñi ma ñi maa tudd nii mel ni Cheikh Ahmadou Bamba mel ni Maam Alaaji Malik mel ni euh, Maam Maska mel ni euh, mel ni mel ni mel ni kilifa yu baax mel ni Cheikh Ibrahim defeer nañ ay junne junne doomu aadama mosoo dégg ñi def vidéo wala ñi dal ci kaw doomu aadama di di wanewu pour bëgg ni ñi ne yow yaa wax dëgg waaye ñoom dañuy o nit ki jàngal ko defeer ko bu génn am yar am teggin xam yar moo ko gën xam lu baax la waaye yar moo ko gën xam bu amul yar musiba naaru laay la dafa mel ni jaasi juñ bocc ci biir mbooloo rek di daw rek di windéer muy càtt nit ñi di dem waaw dafa war a ànd ak yar arab dafay wax ne tarbiya wa tahlim yar ak jàngale waaye xam-xam bu amul ëddëb te ëddëb dafay duhut gettu loos ëddëb duhut wax ndànk ëddëb duhut di wax di benn bennal ëddëb mooy ci ka bu kàddu gi yëkkate ko la ñu xam ndax li am na yar wala amul yar ndax ku la mak ku la man ku la ëpp ci ah, ku la ëpp xam-xam liggéey ci lislaam loo xam ne da nga dund ba dee yaa ngi ñi nga ànd yëpp bu ngeen booloxoon man leen koo liggéey ci lislaam hmm? kooku jumaa jim samp benn sorool ba rek benn soro li jumaa bare bu ngeen dajalee mboolem jumaa yu nekk ci dëkk bi yoo xam ne yéen a ko sponsor samp ko benn soro li jumaa boobu moo ko ëpp moo ko ëpp alal te kooku ci néegam ñeenti mètre la dëkkoon kooku yàlla ñor na ko koo xam ne raw na la te dootoo ko jotati mbooloo mi dem nañ te dootu la leen jotati foo tollu te nekk ci gannaawam di ko sànni xeer nañ bàyyi loolu nañ rafetal xoote bi li ñu war a wax ci Gambie bëri na lii sikk ci Gambie ñu war koo wax bëri na bëgg a feeñ nag moo ñu sonnal waaye ku yàlla feeñalut doo diir bi nga fee nekk la ñuy jël sa vidéo yi rek naan wax na dëgg wax na dëgg nga dee mu jeex tàkk waaye ñii bañ deexee ba léegi xëduna baa ngi leen topp di leen gën a bëgg ndax yonti yàlla Muhammadu miñ bëggoon asalaamaaleykum wa rahmatullah